Nauzu billah min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammad wa alihi wa sahbi assalaamu aleykum wa rahmatullah Très chers amis auditeurs, Par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, nous sommes ensemble en ce jour béni, en compagnie de notre frère Moussa Mbaye, pour poursuivre notre revisitation de l'enseignement inépuisable que nous délivre la mosquée. mbokk yi gannaaw bu ñu sante yàlla subhanahu wa ta'ala ci li mu nu wërsëgal nu mën a daje daje ci bis bu tedd bi ànd di jàngat li nga xam ni moom lañu jàkka di jox ci xeeti xam-xam ci xeeti tabax société nous remarquerons que l'ensemble des séances que nous pourrions avoir et cela jusqu'à la fin de notre vie ne pourrait suffire pour que nous puissions dire la totalité de l'enseignement que nous délivre la mosquée. Ainsi, je veux aujourd'hui consacrer cette séance de conclusion à des questions diverses qui constituent une préoccupation pour la plupart d'entre nous mbokk yi wér na ni bu nu toogoon ba àdduna di tukki ba sunuy dund jeex nu taxaw rekk ci jàngat risaala almasjid du ko teet mukk dañu ciy bay sunu waar ba fu nu mën a yem moo tax ñu bëgg jataay bi nga xam ni tey mooy tëj li jàll lépp ci wàllu jàkk ñu taxaw ci ci lenn tomb yoo xam ni yitte la yitte yu soxal ci lu gën a bare ci nun ndax ci mbokk yi la loola yépp rote wàcc si ci taabalu risalatul quran ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb nag yàlla nunu ko defal Le premier point porte sur les horaires de prière qui dépendent de la position du soleil dans le ciel. L'heure de la prière de Subh, par exemple, va de l'éclosion de l'aube jusqu'au lever du soleil. Quant à Zuhr ou Tisbar, son heure commence à midi et prend fin quand l'ombre de toute chose atteint la longueur de l'objet reflété. Asr ou commence à ce moment pour prendre fin au coucher du soleil ou au moment où les rayons du soleil jaunissent. Le début et la fin de l'heure de Maghrib ou Timis est marquée par l'apparition et la disparition de la rougeur du crépuscule. Et alors commence l'heure de Isha ou gué qui prend fin au premier tiers ou à la moitié de la nuit. Mais pour ceux qui ont une excuse, Isha ou gué prend fin à l'éclosion de l'aube. mbokk yi tomb bi jëkk mu ngi aju ci waxtu julli yi awqaatu salaa waxtu julli yi nag ñu ngi aju ci jant bi doxam ci kaw asamaan ci lool lañuy nattee ñu ni la salaatul fajri julli suba moom waxtoom ma ngi tàmbalee ca tuluu azal bu fajar ja xare wa aaxiruhu tuluu shams muy jeexe ci fenkuk jant wa awalu waxti zuhri zawalu shams tisbaar dana tàmbali bu jant bi tolloo ci midi jeng rek nga ni midi dix midi écart wa axiruhu masiru zil kulli shay mithla muy jeexe ci boo xamee ni bépp mbir bépp nit keram taqandeeram tolloo na ak euh, jëmm ja muy keral nga ni loola te muy keru lu ne tolloo ak euh, la koy joxe huwa awalu waqti al asr ci la tàkkusaan waxtoom tàbbi wa axiruhu isfiraaru shams tàkkusaan di jeex boo xamee ni jant bi ma ngay gel mooy ma ngay jaune aw xurubuha wala jant ba di so wa huwa awalu waqti maghrib te loola ci la waxtu timis tàmbali gelug jant ba wala nga ne sowug jant wa axiruhu xurubu shafaq bu demee nag ba nga xam ni ceeñeer yépp tëdd nëbbu na nga ni timis jeex na wa huwa awalu waqtil isha làquk ceeñeer yooyu lëndëm gi tàbbi ci la waxtu gee di commencé wa axiruhu nisfu layla aw sulusu gee di jeex ci xàcc guddi gi nga ni min wi wala sulusuhu wala ci ñetteelu xaaju guddi gi wa yamtaddu waxtu ahlil ahzaar ila tuluuil fajr bu dee ñaam ngant nag seen waxtu gee dana dem ba fajar ja di xar alors étant donné que les heures de prière sont des fourchettes de temps délimité par un moment de départ et un autre instant de fin, je ne vois pas de raison pour instaurer un faux débat sur les horaires actuels qui sont en cours au Sénégal. Tant que Tisbar, tant que Takussan sont dans les limites définies par la charia, je ne vois pas la nécessité de remettre en question les heures fixées par nos mosquées de prier à 14h15 pour Zuhr Tisbar, 16h45 ou 17h pour Asr ou Takussan, sous le prétexte fallacieux que depuis la colonisation, ces heures ne connaissent pas de changement. mbokk yi bu nekkee xam nanu waxtu julli yi ni ndekete du heure fixe waaye ci diggante ñaari chiffre lay doon dañu lay wax midi ba cinq waaw bu fekkee ci diggante waxtu wa yaatu na bon man gisuma lu war a tax coow li jib ci waxtu yi ñu am tey di ci julli ci biir réew mi di Sénégal li fekk tisbaar li fekk tàkkusaan ñu ngi ci biir waxtu wi nga xam ne moom la sharia rëdd Jibril alayhi salaam jàngal ko yonent bi alayhi salaam mu jàngal ñu ko gisuñu lu tax ñu war ni ah lu tax jàkk yi di julli rek deux heures et quart tisbaar toujours duñu ko soppi lu tax tàkkusaan ñu koy julli cinq heures moins quart wala cinq heures rek duñu ko soppi ndax li rawatina bu ñu nee nag loola depuis tàngu tubaab ya la ñu dal di ni tubaab yi moom moo ko tëral moo tax loolu du soppi la question qui mérite d'être expliquée est plutôt pourquoi toutes les mosquées du monde fixe une heure précise à la minute près pour chaque prière alors que Dieu subhanahu wa ta'ala a envoyé Sayyidina Jibril alayhi salam désigner des tranches horaires affectées à chaque prière par exemple pourquoi 14 heures 15 pour Zohr 2 heures et quart pour Tisbar alors que l'horaire de cette prière commence à à peu près midi pour prendre fin à 19 heures timis mbokk yi li jaroon na leeralal nit ñi kay mooy lu tax jàkka yi waxuma la Sénégal waaye àdduna bépp foofi dem ci àdduna bi jàkka yépp tànn nañu benn minute boo xam ne ci lañuy julli waxtu sàngam ak waxtu sàngam nga ne lu tax ñu ni deux heures et quart julli tisbaar ci jàkka ji fekk ñun ñëpp xam nañ ni waxtu woog tàmbali na ca midi nangam di jeexi daanaka ci juróom-ñaari waxtu pour répondre à cette question je dirais que c'est par souci d'organisation que les musulmans choisissent de se retrouver à un moment précis à la mosquée pour prier ensemble telle ou telle prière et quand vous observez les horaires retenus pour chaque rendez-vous à la mosquée, vous verrez que cette heure, retenue de 2 heures et quart, de 16h45 ou 17h, de 19h20 ou 19h30, est toujours dans la fourchette horaire définie par la charia. mbokk yi nga ni ngir tontu ci laaj boobu danga naan faw mu am waxtaan ci biir jullit ñi war tànn benn minute boo xam ne ci lañuy daje ngir waxtu sàngam ak waxtu sàngam ci jàkk ji pour julli ka mu nekk mbooloo moo tax boo seetee waxtu wi ñu jàpp ci àdduna bépp pour julli gu mu ci mënti doon da ngay fekk ni mu ngi nekk rekk ci biir waxtu wa rawatina ca muxtaaru waxtu wa ca fa ñu taamu ci waxtu wi fi gën ci waxtu wi nga ni ci njaal benn waxtu wi aucune des heures fixées retenu pour la prière collective ne peut être valable si elle est fixée avant le début de l'heure légale ou après l'écoulement de l'horaire légal. Par exemple, toute mosquée qui déciderait de prier Tisbar à 11 heures ou 10 heures du matin, ou Takusan à 15 heures ou 14 heures, serait dans l'erreur et sa prière serait invalide et personne n'accepterait de prier avec elle à ce moment-là mbokk yi ngir mu leer ci ñun dangay seetlu ni bépp waxtu boo xam ni bii jàkk jàpp na ka ni ci waxtu wi lay julli julli suba waxtu wi lay julli julli gee waxtu yooyu ñuy jàpp du baax mukk su fekkente ni waxtu wi charia rëdd tàmbaleegul wala nga jàpp ka fekk waxtu wi charia rëdd jàll na ba pare nga ni bon jàkk joo xam ni nee woon na man kat julli tisbaar maa koy julli dix heures wala neuf heures rek bu jotee damay julli tisbaar nga ni ko sa julli du baax kenn du ñëw ci sa jàkk di wuyu sa nodd jàkk ju ni woon man sama tàkkusaan danaa ko julli bu di jotee ñu ne la yow da ngay foye l'islam dangay foye charia sa julli baaxul te kenn du ñëw di wuyu di la wuy si donc c'est pour éviter surtout l'anarchie qui consiste à ce que chaque individu vienne au moment qu'il déciderait seul ou avec son groupe pour priyer que les musulmans ont défini un moment précis de rendez-vous pour chaque prière à la mosquée mbokk yi bon nag nga ni lu tax jàkk yi jàpp waxtu yi nga ni ngir moytu sëmbaxloo pëccëxoo fawdaa boo xam ne moo doon nekk benn nit bu nekk daal di waxtu wi comme yaatu na man wax minute sàngam lay dem julli ji wala maag sama mbooloo minute sàngam la ñuy julli ji kenn ku ci nekk di ñëw di julli kenn ku ci nekk di ñëw di julli waxtu wu la neex waaw bu boobaa kan la yilimaan di jiite ak kan kan la yilimaan dul jiite ak yilimaan nu muy jàppe ni man waxtu wi lay julli ak waxtu wi duma ko julli bon dangay wax ni jullit ni ngir ñu am nose ci seen mbir seen lépp nekk mbooloo ci la ñu jàppe ñu ni ci waxtu wi yaatu na waaye nañu daje ci jàkk ji bërëb sàngam ce qui veut dire que si un individu a une excuse valable un empêchement reconnu par la charia cet individu peut prier s'il doit prier seul avant ou après les gens qui sont à la mosquée à condition bien sûr que sa prière se fasse dans la fourchette horaire légale indiquée par la charia en considérant la position du soleil dans le ciel. Et c'est de ce point de vue que l'allègement fait aux voyageurs a été arrangé par l'islam mbokk yi li muy tekki mooy ni benn nit boo xam ne am na ngànt tey julli ji ci jàkka ji ci mbooloo mi kooku du ni damay xaar minute bi jàkka ji di julli bu ko mën na julli lu jiitu jàkka ji di julli wala mu julli lu yées gannaaw jàkka ji di julli li fekk rek moom julle mu ngi ci biir waxtu wi nga xam ni moom la sharia rëdd waxtu woowu nag jant bi moo koy joxe du montre du keneen gis nga ci loolu sax la lislaam di wayafalale aji tukki ji ñu ne ki yow mii tukki bu la neexee nga yéegee sa waxtu bu la neexee nga wàccee sa waxtu waaye boo xoolee waxtu yi yëpp dafa nekk ci biir li nga xam ne loolu la charia di rëdd di ko tëral mais amis auditeurs quels que soient les obstacles qui s'interposent entre le musulman et le fait qu'il puisse se rendre à la mosquée il fera tout son possible pour accomplir les cinq prières en groupe Cela parce que cette heure retenue par le groupe, par la mosquée, est celle que Dieu subhanahu wa ta'ala prend en compte. La preuve, c'est le messager, paix et salut sur lui, qui dit, des anges se relaient auprès de vous nuit et jour à l'heure de la prière de soubh et à l'heure de la prière de asr. ceux qui étaient avec vous depuis Asr et qui ont passé le relais à ceux qui vont passer la, la nuit avec vous montent au ciel et Dieu subhanahu leur demande alors qu'il sait mieux qu'eux il leur dit dans quel état avez-vous laissé mes adorateurs les anges répondent nous les avons laissés comme nous les avions trouvés en train de prier Donc ils sont venus au moment de la prière de Subh. Ils sont repartis au moment de la prière de Asr. Donc nous les avons trouvés en train de prier Subh. Nous les avons quittés en train de prier Asr. Mbokk yi nga ni lu mën a nekk gàllankoor ci jullit bi lu mën a nekk ngantam ba tere ka mu dem julli ji ci jàkk ji war na farlu tàndale julleem tombe ak euh, waxtu wi nga xam moom la jàkka ji di julli ndax waxtu woowu jullit ñépp mànkoo ni waxtu wii ci la julli julli sàngam waxtu woowu boo koy xool ci li yonent bi sallallahu alayhi jàngale mooy waxtu wa yàlla subhaanahu wa taala di jàpp ni mooy wa gën ndax wax na moom ki gën ci mbindaafoon yi mu ni yataaqabuuna fiikum malaa'ikatum billayli wa malaa'ikatum mu ni ay malaaka dinañu ñëw di monter garde ci yéen ñee ñooy yendoog yéen ñii ñooy fanaan ak yéen wa yajtamicuuna fi salaati alfajr wa salaati asr monter bi nag ñiy dem ñu ngi ñëlee nga leen di remplacer ci julli suba ak julli tàkkusaan ci la ñuy remplacente summa yaaruju lazina baatu fiikum ñi fanaanoon ak yéen nga xam ni ñoo ñëwoon dëppi tàkkusaan ba fajar ba ñu demee fa yasaluhum yàlla subhaanahu wa laaj leen mbiru jaam ñi wa huwa aalamu bihim te yàlla moo leen gën a xam foofu li jaam ñi nekk mun leen fa kayfa taraktum ibaadi waa naka ngeen bàyyee sama jaam ñi malaaka yi ne tarak taraknaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun mu ne sa jàmm yàlla ñu nga leen bàyyi ñu nga taxaw di julli ba nuy demit di di monte ji garde ci ñoom ñu nga leen fekk ñu nga taxaw di julli ñoom daal xanaa seen julli du dakk mukk nga ciy gise bon ni waxtu yi jullit ñi mànkoo jàpp ko lu am solo la nekkaat fi nag di ci diingat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 L'autre point concerne un certain nombre de choses qui sont déconseillées au sein de la mosquée. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu raconte qu'un jour, pendant que nous étions avec le messager d'Allah, paix et salut sur lui dans la mosquée, un habitant de la campagne, un villageois, un campagnard, entra dans la mosquée et se mit aussitôt à uriner dans un coin de la mosquée. Les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, lui crièrent dessus. Mais la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, leur dit, du calme, du calme, laissez-le. ne l'interrompez pas mbokk yi ñaareel bi mooy ay mbir yoo xam ni lu ñu tere la ci jàkk Anas ibnu Malik mi ñépp xam radiyallahu taala anhu nettali na mu ni baynama nahnu fi l masjid maa rasulillah sallallahu taala alayhi wa ali isjaa arabi fa qaama yabulu fil masjid mu ne bis dañu toog ak yonent bi alayhi salaam ci jàkk ji rek benn arab mooy ku jóge ca baadiya ga ca kaw ga dugg ci jàkk ji rek daldi taxaw mu ngay saw ah sang yi ni ko mëh mëh gaa yi tëb ni ko tuuge waay tuuge waay yonent salaam ni leen la tusrimu da'uhu mu ne bu leen ko tiital bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu def la muy def ils le laissèrent se soulager et quand l'homme eut fini la meilleure des créatures de Dieu le prophète Mohammed paix et salut sur lui l'appela et lui dit avec douceur tu vois Le périmètre des mosquées n'est pas destiné à des choses comme l'urine, les saletés. Les mosquées sont uniquement pour la glorification du nom de Dieu subhanahu wa ta'ala, pour la prière, pour la lecture du Coran. Puis il ordonna à quelqu'un de verser de l'eau sur les traces d'urine de l'homme. Voyant cette douceur et cette affection, dans la façon de le corriger. L'homme s'assit et dit, Mon Dieu, pardonne-moi et pardonne à Muhammad sallallahu ali, mais n'associe personne d'autre à ce pardon. Le prophète alayhi se mit à rire et lui dit, Toi, tu veux limiter quelqu'un d'immense, d'infini. ngóor si saw na ci jàkk ji gaa ñi tëb bëgg dal ci kawam yonentu Yàlla saam mu ne bu mu am ba mu paree mu wooka daldi ne ko waaw xanaa xamoo ne inna haadihi al masajid laa tasluxu li shay min haada al bawl wala al xanaa xamoo ne jàkk yi lii di ay saw ak i salte loolu waru ci waru ci am innama hiya li zikrillah azza wa jall xamoo ne jàkka pour pour bàkk yàlla ak sant ka rek la wa salaat ak julli wa qiraati al quran ak di jàng al quran ak di ko jàngale noona mu daldi sant benn waay fa jaa bi dalwin min ma fa shannahu alayhi mu ne ko demal nga wut ndox mu ndox mu ne ko sotti ko ci fi mu saw mu sotti ko ci saw yi laabal bërëb bi ngóor si xool jëfinu yonent bi alayhi salaam ak jëfinu gaañi rek nga xam bu ñu ko bàyyi woon ak ñoom def nañu ko ni waa Dakar di def ab sàcc bu ñu jàpp mu daldi di tàllal loxo mu ne allahumma axfir lii wali muhammad yow yàlla maa ngi lay ñaan nga baal ma te nga baal muhammad alayhi salaam mi wala taxfir li ahadin maana waaye nag bul boole kenn ci baal gi nga ñuy baal ñun ñaar ma ngay ma ngay jëw gaaña naan bul baal gaa yi nga xam ni ñoo ma naroon a duma ci jëf ji ma def ci jàkk ji fa daxika rasulullah sallallahu alayhi salaam ree ree reewam ju tedd ja daldi ni ko yow yaa ngi bëgg tënk koo xam ni kii kooku la dara mënu ko tënk xajul fenn yërmandeem yaatu na ñépp xaj nañ ci mën na la baal baal ma waaye baalaale gaa ñi nu toogal mbokk ñaan yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal noonu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb mën a borom bi yàlla nanu ko defal ذلك الملوك الأكوان مصطفى الرحمن أنت في الأكوان مصطفى الرحمن جئت بالقرآن هاديا لله يا رسول الله Ainsi donc l'homme par les urines, par le la femme qui a ses règles ou ses lochis ne peuvent entrer dans la mosquée. Les ordures doivent être dégagées de la mosquée. De la même façon, on ne doit pas élever la voix dans la mosquée si ce n'est pour traiter de questions sociales d'importance publique ou pour glorifier Dieu subhanahu wa ou enseigner le Coran ou appeler à la prière ou adresser à Dieu des demandes comme celles que nous faisons à l'entrée de la mosquée où nous disons le pied droit au devant Allahumma aftah li abwaaba rahmatik Seigneur ouvre-moi les portes de ta miséricorde ou comme les paroles que nous disons en sortant de la mosquée Allahumma inni as'aluka min fadlik. Seigneur, je te demande de m'accorder de tes faveurs. Ou bien encore, la parole que disons, quand le muezzin finit de lancer son appel. Cette prière dit Allahumma rabba hazihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'asu maqaman mahmoud allazi wa'adtahu et le messager d'Allah la meilleure des créatures dit celui qui dit cette prière après avoir entendu et imité le muezzin celui-là bénéficiera de mon intercession le jour du jugement on peut toujours dire cette autre parole qu'on dit quand le muezzin lance le iqama, on répète la même chose et quand il arrive à qad qamati salah, on dit aqamaha Allah wa adamaha. Que Dieu élève la prière et que Dieu fasse que la prière se perpétue à jamais. Enfin, on peut faire toutes les prières que l'on veut adresser à Dieu, le zikr du nom de Dieu et ainsi de suite. mbokk yu tedd yi ànd ak nun ci bis yu tedd yi bon gis nga ni ki nga xam ni sobewu na moo xam dafa sobewu ci ay saw moo xam dafa sobewu ci ay maniw walla moo xam jigéen la bu gis baax wala jigéen la bu nekk ci reretu gisan ñooñu ñépp duñu tàbbi ci jàkk ji noona itam lañu teree yëkkati ay kàddu caaxaan woya ki pecc ci jàkk ji kàddu yi ñuy yëkkati daal ci jàkka mooy kàddu yiy defar dundu jullit ñi kàddu yoo xam ni mu ngay bàkk yàlla ak di ko sargal kàddu yoo xam ni mu ngay tudd alquran ak di ko leeral ak di ko jàngale kàddu yoo xam ni mooy woo gaaña ca julli ga xay yàlla salaati xay yàlla alfalaax kàddu yoo xam ne moom la jullit bi di wax jamono boo xamee ni bii mu ngi tàbbi ci jàkka ji di tàbbi tànku ndeyjooram jiitu mu ni gannaaw bu jullee ci yonant bi alayhi salaam allahuma aftax lii abwaaba rahmatik yow yàlla ubbil ma bunti yërmande yépp wala mu ngay génn jàkka ja tànku càmmoñam di jiitu mu naan allahuma inni asaluka min fadlika yow yàlla maa ngi lay ñaan ci sa mbaax yi mbokk yi wala kàddu ya muy wax gannaaw aji noddkat bi bu noddee fekk mu ngay topp la aji noddkat ba di wax mu pare mu ni allahuma rabba haadihi daawati taama walsalaati alqaaima aati muhammadan alwasilata walfadilata wabcasu maqaaman mahmuudan allazi waadtahu yonent bi alayhi salaam mu ne ku wax kàddu yi gannaaw bi nga dégloo nodd gi toppandoo aji noddkat bi xallat lahu shafaati mu ne kooku bu ëllëgee bis penc dagan na ci man danaa ko ràmm ci kanamu borom bi mbokk yi kàddu yi jib ci jàkka mooy bu ñuy liqaam jullit ñi di topp aji liqaam ji la muy wax nañu doon toppe aji nodd ja la muy wax bu ñëwee ba ne xad qaamati salaat ñoom ñu ni aqaamaha llahu wa adaamaha aqaama llahu alsalaat wa adaama salaat yal na yàlla taxawal jullite te saxal ka gis nga kàddu yu mel nii la jullit ñi di wax yépp kàddu yu rafet yépp waxtaan yoo xam ne mu ngi jëm ci luy defar xol yépp waxtaan yoo xam mu ngi jëm ci luy defar jikko yépp waxtaan yoo xam mu ngi jëm ci luy defar mbokk gi luy defar pas-pas yi yii mooy kàddu yi jib ci jàkk puukare amul foofu caaxaan amul foofu kekkentoo ci ree amul foofu ainsi ami auditeurs que le dit le meilleur la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui il dit que les gens se réunissent dans les maisons de Dieu les mosquées pour lire le Coran, chercher à en comprendre le sens. Et dans ce cas, des anges forment autour d'eux des haies d'honneur et Dieu fait descendre sur eux la sakina et la miséricorde divine les couvre. Dieu subhanahu wa en plus de tout cela, parle d'eux aux anges de la proximité. bon lii mooy kàddu yi jib ci jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa ali mu ne majtamaa qawmun fi baytin min buyutillah mu ne gis nga ay nit bu ñu dajaloowee ci benn ci këru yàlla yi te mooy jàkk yi yatluuna kitaab allah ñuy jàng téere yàlla bi fa yatadaarasuunahu baynahum di ko jàngalante di xool lan la alquran ji di wax ngir ñu jëfe ko mu ne duñu ko def illaa xafathumul malaayika lu dul malaaka yi dañuy ñëw yëng leen nii wa nazalat alayhimu sakina malaaka yaa nga leen wër keral leen ak seeni laaf yërmande jooju tudd sakina yàlla di ko wàccee ci seen kaw wa ghashiyat humur rahmatu yërmande yàlla ji nag muur leen wa man abtaa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu mu ne koo xam say jëf taxul nga gaaw a yegg ci yàlla sa juddu moos du moo la cay yóbbu ami auditeur la mosquée est donc le moteur de l'équilibre social par le rappel par l'orientation sur la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala qu'elle prodigue c'est pour cette raison qu'on n'y fait ni annonce, nii publicité, ni commerce gis nga jàkk bu fekkee taxaw na taxaw bi ko war da ngay wax ni bu doon oto mooy moteuru société bi mooy tax société bi dal ndax mooy fàttaliwaat li nga xam ni moo war nit ci dundam ci kaw suuf mooy jubbantiwaat nit ñi teg leen ci yoonu yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax jàkka du pour yëgle ak yéene du pour itam jënd ak njaay le prophète Mohammed paix e salut sur lui nous dit si vous voyez quelqu'un vendre dans la mosquée dites que Dieu ne fasse pas prospérer ton commerce et si vous entendez quelqu'un annoncer des objets perdus dans la mosquée dites que Dieu fasse que tu ne retrouves jamais ce que tu as perdu noonu la gën ji mbindeef dina jàngale mu ne iza raaytum man yabiu aw ibtaa fi l masjid fa quulu laa arbaha llahu tijarata mu ngeen mu ne bu ngeen gisee kuy jënd wala muy jaay ci jàkka yi di waxaale mu ne nangeen ngeen rëbb ngeen wax yàlla bu sa njaay mi jar yàlla bu mu am benn barke yàlla bu mu am bénéfice wa ay raaytum man yunshidu fil masjid fa quulu la radd lahu aley mu ne bu ngeen déggee kuy yëgle lu réer ci jàkk ji mu ne na ngeen ko rëbb moom itam ngeen ni yàlla bu yàlla feeñal li ngay wut ak di ko yéene ci biir jàkk ji de même ami auditeur toute attitude non hygiénique est prohibée dans la mosquée Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu dit que messager de Dieu La meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, vit un jour une trace de morve dans la Qibla. Aussitôt, il prit un bâton et, gra et la gratta puis dit qu'aucun de vous ne se mouche en direction de la Qibla ou à sa droite, crachez à votre gauche ou sous votre pied gauche. lenn lu mu mënti doon ci xeetu salte xeetu ñàkk cet kooka bañ nañu ko ci jàkk ji abu said alxudri radiallahu anhu mu ne bis yonent bi alayhi salaam dafa gis nu xaama fil xibla ñandaxit mu ne mu gis ñandaxit ci xibla gi mu daldi jël benn xasaat fa xakkaha mu jël bant xoos ko ba mu set tumma qaal daldi nu ni laa yatanaxam ahadukum fi lxibla bu kenn ñandooti ci xibla gi wala an yaminihi bu kenn ñandu ci sa wetu nday joor wal yabsuq an yasaarihi aw taxta rijlihi al yusra koo xam ni dem nga bay tëfli na nga tëfli ci sa càmmooñ wala nga tëfli ci sa suufu tànku càmmooñ gis nga yii mooy jàngale yonent bi alayhi su ko defee jullit rawatina ci jamono yu feebar yu bon yi du ñamdu ci ay loxoom du fomp ay rangooñam ci ay loxoom tàbbi ci jàkk ji kenn ku nekk mu joxle ci loxo loola di jur musiba ëllëg ci biir jàmm nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal ركن عز دام شأنك الإنعام أنت بعد الله يا dans le chapitre des questions diverses soulevées par nos fidèles amis auditeurs, il y en a qui dit est-ce qu'un musulman peut cesser de fréquenter une mosquée pour une autre parce que l'imam de la première mosquée n'a pas le niveau requis sur le Coran? En réponse, je dis que le minimum requis pour un imam est d'être de bonne moralité, de maîtriser la Fatiha et au moins une sourate. Enfin, de connaître ce qui invalide la prière et comment réparer les erreurs qui peuvent survenir au cours de la prière, mais aussi l'imam ne doit pas être quelqu'un qui vit d'innovation et qui encourage les innovations dans la communauté mbokk yi toujours ci tomb yi nga xam ne ñoo rote ci mbokk yi mbokk mi dafa wax mu ne ndax jullit mën na bàyyi benn jàkk joo xam ne yilimaan ja amul benn xam-xam bi ci alquran benn mustawa bi nga xam ni moom lañu soxla ci limaan ci alquran mu bàyyi jàkk jooje ji limaan jooju di jiite wuti jeneen jàkk ju mu judd ma ne lii ñu sàkku ci yilimaan ngir nit nekk yilimaan mooy faw mu am jikko yu rafet faw mu man faatiya mokkal ka di ka tari di tudd araf yi tudd wu leer faw mu man gannaaw faatiya benn saar boo xam ni ci ñu war a teg saar saar booba lay jàng bu fekkee mën na yii faw mu xamit li nga xam ni mooy yàq julli faw it mu xam bu amee njuumte ci biir julli gi nan lañuy ñuy defare julli googu fekk du ta du du jar nga sànni julli ga ñu liqaamaat di taxawal julli gu bees beneen bi itam mooy yilimaan jooju warul nekk koo xam ne kii day day dund ci loo xam ne yu ñu sos la nekk ci biddaa di ko doxal wala di ko jéem a doxal ci biir jàkk ji ak ci biir jullit si ces critères sont réunis ne sont pas réunis chez un imam le musulman peut aller chercher une mosquée qui respecte les principes de l'imama et les principes de l'islam c'est le Coran lui-même qui dit je cite il y a des gens qui construisent des mosquées pour en faire un instrument de concurrence, de rivalité, de promotion de l'impiété et de la division au sein des musulmans et qui en font le quartier général de ceux qui combattent Dieu et son prophète. Mais quand vous le leur direz, ils le nieront en vous jurant, nous ne voulions que le bien en construisant cette mosquée. Dieu atteste qu'il mente, n'entre jamais dans une telle mosquée. Mais une mosquée bâtie dès le premier jour sur la foi et la piété est seule digne que tu la fréquentes. Là se retrouvent des gens qui aiment se purifier et Dieu aime ceux qui se purifient. Sourate Le Repentir, versets 107 et 108. xoolal bu fekkente ni yii ñu la wax matul ci yilimaan ji bu la neexee mën nga wuti jeneen jàkka joo xam ni sart yi mat na fa sart yi ñu tànn yilimaan respecté nañu ko li lislaam di santaane ñu nga ciy góorlu ngir jàkk ji tege ca ndax alquran ci boppam moo wax ca sóoratu ba yàlla mu ne wallazina taxazu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna almuminin wa irsaadan liman xaaraba allah wa rasula mu ne am na ñoo xam ne dañuy tabax jàkk tabaxuñu jàkka lu dul ngir lor jullit ñi wa kufran ak weddi yàlla subhaanahu wa taala wa tafriqan bayna almuminin ak séddale jullit ñi kii diw la kii mooy jàkk jàkkay diw ku bokkul ci nangam doo ci julli wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasula ak mu nekk bërëb boo xam ne ñiy xeex yàlla ak yonentaam fa lañuy nase li ñuy xeexe mooy seen quartier général mooy seen markaz min qablu lu jiitu wala yaxlifunna in aradna illa alxusna te boo leen ko waxee dañu lay waatal yàlla mu ne dañ la naan in aradna illa alxusna wutunu lu dul lu gën a rafet lu gën a baax la wut ci jàkk ji nu tabax wallahu yashhadu innahum la kaazibun yàlla seede na ni ñoom dañuy fen waxuñu dëgg laa taqum fihi abadam mu ne jàkka ju mel noonu boo gisee jàkka ju mel nii mu ne bu ci taxaw mukk jàkka joo xam ne ci kaw daraja la sañcu jàkka joo xam ci kaw réer la sancu jàkka joo xam ci kaw sadd yoonu yàlla la sant mu ne bu ci taxaw laa taqum fiihi abadan bul ci taxaw mukk la masjidun xus ussisa ala taqwa min awali yawmin ahaq an taquma fii na nga seet jàkka joo xam ne ba ñu koy tabax ragal yàlla moo tax ñu tabax ka gindi jaamu yàlla yi ñoo tax ñu tabax ka boole jullit ñi ñoo tax ñu tabax ka amal li yàlla subhaanahu wa namm ci jaam ñi moo tax ñu tabax ka mu ni jàkka jooju nga xam ni ci njaal benn ci ragal yàlla lañ ko tabax moo yey nga taxaw ci di ci julli ak di ci tàbbi fiihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu jàkka ju mel noonu ña cay nekk mooy ay jullit ñoo xam ni dañuy bëgg sell di bëgg laab wéetal yàlla kese moo leen ñor wallahu yuhibbul mutahhirin yàlla nag dafa sopp te bëgg ñi nga xam ni dañuy farlu di laabal seeni xol di laabal seeni jëf di laabal seeni cër di laabal seen zahir ak seeni baatin suratu tawba laaya téeméer ak juróom-ñaar laaya téeméer ak juróom-ñett amis auditeurs cet autre nous dit comment doit-on faire pour les heures de prière qui nous trouvent au travail ou en classe Pour lui répondre, je dis qu'après avoir parlé des heures de prière, nous avons retenu que l'heure est vaste. J'ai même dit c'est une fourchette, une tranche horaire. Et que si nous ne pouvons nous rendre à la mosquée, nous avons la latitude de prier dans la fourchette à n'importe quel moment. Le tisbar, je l'ai dit tantôt, c'est de 12h15 jusqu'à au crépuscule. Le takusaan, c'est de 16h jusqu'à au crépuscule, etc. Ainsi, il n'y a pas de raison pour que quelqu'un se fasse rejeter de son examen ou que quelqu'un se fasse chasser de son travail pour dire que obligatoirement j'ai pris à cette minute près à laquelle prie la mosquée. kii dafa waaw nan lay def ak waxtu julli yi nga xam ni daf may fekk ci bërëbu liggéeyukaay bi wala mu fekk ma ci classe bi ci bërëbu jàngukaay ñu ne li ñu wax ci waxtu julli yi mooy waxtu julli dafa yaatu wax nanu la ni ki mënul dem ci jàkka ja may nañu ko moom bu waxtu wi tàmbalee rek fu mu ci mënti yëg ni mën naa ju mën naa ko julli ci bërë ci bërëb bii ci minute bii mu julli ko ci waxtu bon yaatu na yi nuy fekk ci julli mooy tisbaar ak tàkkusaan lu gën a bare tisbaar jooju wax nañ ni la midi bu jengee rek tàmbali na ba timis di jot tàkkusaan jooju bu quatre jotee rek nga ni tàmbali na ba timis di jot bon waxtu yu yaatu la yoo xam ni xiiroo ak ngaayoo waru ci am ci jullit bi xam li nga xam ni mooy li ko yàlla subhaanahu wa taala sant ak rëdd daytal yi charia yombal gi mu ko yombalal comment réparer la prière quand on dit la Fatiha à voix basse alors qu'il fallait la réciter à voix haute dit cet autre fidèle ami auditeur je lui dis que dans ce cas on fait simplement deux prosternations après le dernier taïa mais avant de prononcer le salut finale. Après avoir fait le tailleur, on se prosterne deux fois et on s'assied pour faire de nouveau le tashahhud, c'est le tailleur, et enfin on fait le salut final. Pour ces questions de réparation de la prière, le mieux c'est d'aller apprendre le Lahdari dans le Babou Sahwi. Et le dernier nous dit Que dit le Coran sur une mosquée Waaw. Kii dafa wax mu ni naka la ñuy defaree julli bu fekkee juum nañu ñu jàng faatiye yelu ko mooy ñu wax ka ndànk ci suñu xel fekk nag julli googu dañ ko waroon wax ci kaw comme kuy julli suba wala kuy julli timis wala kuy julli gee mu ne bu boobaa nan la ñuy def ma ne ko bu boobaa kooka day bu demee ba taaye ju mujj ja nga xam ni dara desul lu dul sëlmal bu taayaa ba pare du sëlmal dafay sujoot ñaari sujoot toogaat taaye door di sëlmal noonu lañu koy defaree bunt boobu nag faaw delluwaat ci baabu sax wi mu nuy jàngal sew-sew yépp yi nga xam ni moo nekk ci bu nu juumee ci julli naka lañu koy defare te du du jar ñu yàq julli ga tàmbaliwaat sero kii ni lan la alquran wax ci jàkka joo xam ni jii dafa am kees kees ga dañ ciy cotiser di ci def kees googu nag dañ ciy lebal ku am soxla rekk ñu lebal la waaye da ngay fay booy fay nag dañu ci teg dara teg ci intéret bu ndaw boole boon mille francs da ngay fay 1000 francs teg ci 100 francs 1100 francs pour cet acte je dis que le fait d'instaurer une caisse de solidarité d'entraide est un point positif pour ces musulmans car cela renforce la solidarité islamique, mais l'intérêt qu'ils y mettent, aussi minime soit-il, est haram. Encore plus haram que c'est une mosquée qui pratique ce riba, cette usure. Nous devons, dans nos mosquées, respecter les principes de l'islam. Arrêtez de faire du riba. Arrêtez de mendier pour la mosquée quand l'imam fait le khutb du vendredi arrêtez de mandier quand l'imam fait le khutb de Tabaski ou de Korité tous les moments où on interdit tel acte cet acte ne devrait jamais se faire au sein de la mosquée mais malheureusement c'est dans nos mosquées que nous voyons violer tous les principes de l'enseignement islamique et cela doit cesser les musulmans doivent y veiller Si c'est la mosquée elle-même qui viole les principes, quest que la rue et la maison va faire mbokk yi jàkka joo xam day lebale di ci teg intérêt mooy bu ñu la lebalee fukki dërëm nga fay fukk ak benn wala fukk ak ñaar lebale bi ak amal kees moom lu baax la ndax dimbalante la ci biir jullit ñi te loolu la yàlla subhanahu wa taala santaane waaye teg ci lenn lu weesu li ñu lebal nit ki kooku moom riba la xaraam na daganul ci fenn dafa gën a ti xaraam nag gën a bon bu fekkee ñu ngi koy def ci bërëb bi nga xam ni foofu lañu ko tere te mooy bërëbu jaamukaayu yàlla bu ko defee faaw góor góorgóorlu ci suñuy jàkk sunuy jàkk ñu fexe ba mu tege ci li yàlla subhaanahu wa di bëgg ñu fexe ba sunu jàkk moytu li nga xam ni mooy ribaa nu moytu ilimaan a ngi taxaw ci min bar bi di xutba ñu ni foofa bu fa dara jib ñu yalwaanal jàkk ji ilimaan a ngi taxaw di xutba ci àjjuma ma ngi taxaw di xutba ci tabaski di xutba ci korite ñu ngi ilimaan yaa ngi jóg di yalwaan ngir jàkk ji loola daganul loola nag li ci gën a bare li ko jur mooy sunuy jàkk du ay borom xam-xam ak yor waaye ku mel na man liggéey nga ca administration ba ba retraité masoo yitte wóolu jëm ci jàkk wala nu muy doxe retraité nga xamatoo loo def nga ñëw ci jàkk ji aakimoo ko di ca doxal ak na daan doxale ci sa bureau ak ci sa bërëbu liggéeykaay jàkk doxewul ci doole doxewul ci fitna doxewul ci kilifteef day dox ci li nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa ali rëdd dox ci xam-xam dox ci respect charia nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yal na nu ko defal حبيب yi ñu leen di jox ndaje ci ayu bis yi nu dëgmal dal tomb bu bees gannaaw bu nu yàlla wërsëgalee nu julli ko ca na mu ko bëggee ñu ngi nekkoon fii ci rajo senegal international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

ذلك الملهوف يا عظيم الجاه آه كنت للأسرار كلها مضمار كنت للأسرار كلها مضمار أيها المختار أنت باب الله في الأكوان الرحمن أنت في الأكوان مصطفى الرحمن جئت بالقرآن هاديا لله يا رسول الله إلى